Gambo Dakar Sacré-Cœur tamit war na jàkkaarloo ak AS Pikine CNEPS war a jàkkaarloo ak Stade de la Linguère de Saint-Louis war a jàkkaarloo ak Guédiawaye Football Club Génération Foot war a jàkkaarloo ak Jaraaf match boobu tamit dina neex ndax Génération Foot li mu bëgg moo di defer toogaayam ca Ligue 1 ba bu dee Jaraaf moom sen toogaay beggandiwul dara li ñu bëgg moo di ndam match yooyu yëpp nag tey jii la bu quatre heures et demi jotee kon gaañe xaar ko te dem stade jàppale seeni club bu baax quatrième journée bi nag démb la ko door jàmbaar moo doon dalal Casa dóor ko ñetti bal ci benn douane doon dalal Sonacos ñu témboo ndam demul ndam dikkul fii ci réew mi ba léegi tey jii am na làmb ju mag ju fi war a am di dox ci diggante Papa Sow ak Siteu làmb joojee nag amateur yi li ñu ca woote moo di jàmm ak salaam supporters yi dem ci dal bu ñu bëree ba noppi nag ku yàlla may ndam ñu xam ne ndam li du génn ci réew mi supporters yi mën a delluwaat seen kër ci jàmm amateur yépp loolee la ñu loolu la ñuy ñaan tamit ñu door revue de presse bi dooree ko Londres Angleterre fekk fa sun sport Erling Haaland la fësal ca xët wu njëkk wa Haaland daal jinne la démb club ba mu nekk di mën Manchester City fëlaam la ñu doon jàkkaarloo waaye bu nekkul woon ak doomu norvege bi waa Manchester City du ñu am ndam match boobee ca bang ba la ko dooree li ko waraloon moo di dafa amoon ab blessure match boobee nag toq rek moo tee mu bañ ko football ndax Pep Guardiola da ko bëggoon teg ci bang bi noppal ko waaye ba ñu dawalee tuuti fa am carton rouge laata ñuy miita nag match ba 1-1 la woon waaye ba ñu mitaawee ci la doomu Norvège bi dugg ñu dawal ba quatre-vingt-quinzième minute ci la Manchester City am penalty ñu jox ko Erling Haaland mu dugal ko moo tax ñu am ndam démb ci kaw Fulham jamono jii nag ñoo nekk ci première place ba muy waa Manchester City tey jii nag la Arsenal di football Arsenal si lay jàkkaarlool match boobee midi lay door Arsenal li mu bëgg moo di am ndam ngir mën a jëlaat première place bi bu dee waa Chelsea ñoom li ñu bëgg moo di am ndam ngir defar seen toogaay ca classement ba kon match boobee di yomb bu midi jotee nag lay door. foofee ca Premier League ba tamit tey jii ñoo ngi fay xaar match bu nar a tàng di dox ci diggante Tottenham ak Liverpool diggante Antonio Conte ak Jürgen Klopp nag mosul sedd kon match boobee dina tàng jër waa Liverpool li ñu bëgg moo di dem ca Tottenham am fa ndam waa Tottenham li ñu bëgg moo di dalal Liverpool dóor ko ndax ñoom ñaar ñëpp ni ñuy doxee jamono ji ca prime league ba doy na waar kon mat boobee dina tàng jër bu 16h30 jotee nag lay door foofee ca Angleterre seen doom ji di Calvin Phillips nekk ci Manchester City Pep Guardiola joxe na ay xabaar ci moom nee na gone gi wér na ci Gareth Southgate képp lay aju mu woo ko wala mu bañ koo woo waaye gone gi noppi na te suñu ko woowee mën naa jàppale réewam ca coupe di monde ba Guardiola ma koy tàggat ca mën siti nag moo xam xamle kàddu yooyu ci fàttali gone gi taxawaayam ca équipe nationale bu ndax saa suñu ko fa woowee day départ titulaire ndax milier de terrain bu mën la muy def la ñu jugee Londres Angleterre wutali portigal fekk fa Oxogo waa Porto la fësal ca xët wu njëkk wa démb Passos Ferreira la ñu doon jàkkaar lool dóor ko ñetti bal ci dara ndam loolee nag am na solo lool ndax nooy waat nañu ca bopp classement ba waaye kaleen di tàggat di Kontien Thiaw ma ngay wax nee na am na benn jamono nag ci biir match bi sama gone yi dañoo bàyyeeku woon te loolee warut leen li leen war bu ñu nekkee ci match moo di concentré wu jëmbat fulla ci ndoorte gi ak ca njeexintal ba liikat kat bu ngeen ko yàgg def def ko club bu mag mën ngeen a am defet waaye li am solo moo di ndam li te am nañu ndam li jamono ji nag Benfica ma ca bopp classement ba juróomi poñ képp la leen rawee waaye Benfica moomee tey jii lay football Estoril lay jàkkaar lool su fekkee Benfica am na ndam juróom-ñetti poñ lay rawee Porto waaye jamono ji daal Porto la ko waroon def na ko moo di am ndam ñu jugee Portugal wutali Espagne wàcc Madrid fekk fa Marca yéenekaay Abdoulaye Gérard Piqué la fësal ca xët wu njëkk woo Piqué nag mooy tàggatoo ndax Piqué démb la bàyyi football matsam bu mujj démb la ko football Barcelone moo doon dalal Almeria waaye Piqué nag jël na kàddu ba match boobee jeexee nee na moom ca Barcelone la juddoo te foofu lay deewee Gérard Piqué moo xam xamle kàddu yooyu boole na ko nag ak ay jooy défenseur bi nga xam ne yàgg na lool ca Barcelone def fa ay jaloore foofe la ànd bi di yem waaye nag ba muy jógee foofee moo Santander ba ndax clubam di Barcelone moo dóor Almeria ñaari bal ci dara kon jamono ji Barcelone moo jël pee ca Liga Santander ba Real de Madrid lëndi lay football Rayo Vallecano la Real de Madrid di jàkkaar lool waa Atlético de Madrid tamit ñoo ngi ci journal bi ñoom nag tey jii bu une heure jotee Espagnol de Barcelone la ñuy dalal match boobee nag Diego Simeone la mu ca woote moo di ñu boole seen doole ànd bokk benn bëgg-bëgg ndax jamono ji club boobu ndam la soxla ñetti match moo ngi nii amuñu ndam ndax dañoo jàkkaarloo ak Bayer Leverkusen mu jëm ci Ligue des Champions ñu témboo 2 ñu jógee fa jàkkaarloo ak Cadiz kadis dóor leen ñetti bal ci ñaar ñu jógee fa dem ca Porto Porto dóor leen 2-1 tey jii nag li ñu soxla moo di ndam ndax semaine bii ñu génn dafa ñuul kuku muy waa Atlético de Madrid. foofee ca Espagne nag tey jii ñoo ngi fay xaar derbi bu war a neex di dox ci diggante Betis Séville bu Youssouf Sabali ak FC Séville match boobee 20 lay door gaañi xaar leen ko. jamono jii nag ñaari club yi ni ñuy doxee bokkul bu dee Betis Séville bu Youssouf Sabali ñoom ña ngay doxal ci Liga Santander ba bu dee waa FC Séville ñoom jamono ji doxaluñu ndax ni ñu dooree Liga bi baaxul waaye match boobee dina. neex lool tey jii la bu vingt heures jotee Betis mooy dalal Séville ñu jugee Marca yéenekaay jël AS yéenekaay moom it Gérard Piqué la fësal ca xët wu njëkk wa maa ngi fii duma fi jugee te fii lay deewee tekki naa samay godaas waaye tekkiwul ne damay bàyyi club bi kaddu yooyee Gérard Piqué moo ko xamle démb nag la tàggatoo ak supporteru Barcelone yi ànd ak ay farandoowam ca Camp Nou Sportivi gaañ a ginnaaw bi ñu amee ndam ci kaw Almeria Jordi Alba ak Piqué ak farandoom yëpp Piqué tàggu supporters yëpp xamal leen ne leen bàyyi naa football waaye maa ngi fii te fii lay deewee journal bi tamit ñëw na ci match bi nga xam ne Atlético de Madrid am na ko tey ji bu une jote jotee Espagnol de Barcelone lay jàkkaar lool waaye nag Alvaro morota ak Marcos Llorente Diego Simeone amaat na leen ndax ñoom ñaar dañoo amoon blessure waaye tane nañu te noppi na ñu ngir bokk ca match boobee Atlético nag tey jii ndam képp moo ko mën a jagal bi Rudiger tamit mu ngi ci journal bi moom nag jamono jii li waa Real de Madrid doon xaar ci moom am nañu ko ci moom ndax kat foofee ma ngi fay doxal te ma ngay wane boppam te foofee ca Real de Madrid mooy ñetteelu jour boo xamante ni bu ñu ko dugalee day wane boppam maanaam dina doxal te ñey seetaan match ba dinañu ko bàyyi xel kon Rudiger fa ko Real de Madrid doon xaar weesu na ko loolu la journal bi xam le ñu jugee Madrid wutali Barcelone fekk fa esport Piqué la fësal ca xët na kenn du ko fàtte fii ci Barcelone loolu la journal bi xam xamle démb la tekki godaas yi xamal askan wi yépp ne bàyyi na football ci match boo xam ne moo ngi doon dox ci diggante Barcelone ak Almeria Almeria moomee sax dafa nërmeelu Barcelone moo ko dóor ñaari bal ci dara Ousmane Dembélé moo dugal ak Frenkie de Jong jamono jii nag waa Barcelone jaxase nañu xelu waa Real de Madrid ndax ñoo jël pee ca Liga Santander ba rawee Real de Madrid ñaari poñ Real de Madrid moomee sax suba lay football ñu jugee Esport jël Mundo Deportivo Piqué la fësal ca wu njëkk wa maa ngi dellu si waat loolu la xam xamle démb la tàggatoo xamal supporters yi ne leen bàyyi naa football Camp Nou googee nag démb defal nañu ko fa hommage bu doy waar muy Gérard Piqué supporters yi tàccu nañu ko waaye dañu doon yuuxu naan Piqué président Piqué président loolee la ñu doon wax ndax xam nañu ne Piqué bëgg na club bi te am na moyen yi ngir doon président wu Barcelone waaye nee na maa ngi dem waaye maa ngi dellu siwaat kàddu yooyu Piqué moo ko xamle. ñu jugee Espagne wutali Italie wàcc Rome fekk fa Corriere dello Sport waa Napoli la fësal ca xët wu njëkk wa kenn mënut leen a téye loolu la journal bi le démb Atalanta Bergame la ñu fekki woon naam Atalanta moo njëkk a mëne ca match ba waaye gone Spalletti yi dañu ko remonté dóor ko ñaari bal dara. dara jamono ji nag Napoli moo nekk ca bopp classement ba AC Milan mi topp ci kawam juróom benn poñ la ko rawee AC moo moomee sax démb la doon jàkkaarloo ak Spezia dóor ko ñaari bal ci benn AC Milan moo njëkk a dugal Théo Hernandez moo dugal waaye ba ñu doxalee tuuti Daniele Maldini égalisé Daniele Maldini moomee nag doom la ci mal dini mi nga xam ne mooy directeur sportifu AC Milan AC Milan moo ko able ca Spezia waaye ba ñu demee ba ca cëppaandaw ga ci la Olivier Giroud may ndam waa AC Milan jamono ji nag ñoo nekk ca ñaareelu place ba muy waa AC itali ca googee nag tey jii ñoo ngi fay xaar match bu nar a neex di dox ci diggante Juve ak Inter match boobee nag doomu Serbi bi di Vlahovic wóoragut mu bokk ca ndax ba léegi nekkagul à cent pour cent loolu la journal bi le waaye match boobee nag dina neex li ko waral moo di Juve huitième la jël Inter jël sixième te Inter ñaari poñ képp la rawee Juve su ko Juve dóoree rek Inter day wàcc Juve yéeg dem ca juróom ñetteelu place ba kon match boobee dina tàng jër tey jii la nag bu 19h45 jote ñu jugee Corriere dello Sport dem Torino fekk fa Tuttosport moom match ba ñuy xaar tey jii foofee ca Torino la fësal ca xër wu njëkk wa Juve mooy dalal Inter Inter googee nag ka koy tàggat di Inzaghi ma ngay dolli kaani ca mbir ma ndax nee na Inter Juve moo ko mën ñu ne ko lu tax mu ne Juve ñaari équipe la yor match boobee nag dina tàng jër ndax Juve dafa bëgg am ndax jamono ji li muy am ci ay défaite bari na boobee nag journal bi nee na Arkay Jus Milik day départ titulaire ca match boobee Maximiliano Allegri li muy xel yaar moo di boole ko ak Ángel Di María ak Federico Chiesa ca wet ya ñu koy xellil muy mbëkk loole lay xalaat waaye bu dee milik moom day départ titulaire ca match boobu 19h45 nag lay door kon gaañi xaar leen ko. ñu jugee Torino wutali Milan fekk fa la Gazzetta dello Sport waa AC Milan la fësal ca xët wu njëkk wa rawatina Olivier Giroud Giroud mii du bàyyeeku loolu la journal bi xamle démb waneeti na boppam keroog bi ñuy jàkkaarloo ak Salzburg match boobee ñaari bit la dugal démb moo may ndam waa AC Milan ci kaw Spezia